voilà mbokk yi nga xam ne ni topp ni ñu ko waxee rek bu leen fàtte di abonné bés cloche bi am notification mën recevoir suñu information ngeen mën woote ci numéro bi affiché noonu ci suufu écran bi pour quand même bu ngeen soxlaa euh, euh, euh, wala yen événement yi ñu ñëw leen ko ci anam gu mucc ayib ni ñu ko waxee ñu ngi ci xeexoo bu am solo bi di nag salon maison déco lool nag jëm ci wàllum artisan yi mu jagleel ko pàcc bi nga xam mu ngi jëm ci wàllum liggéey yu jëm ci kër ak décoration yi tabax ku wax tabax xel dem ci jumtuwaay yi fay dem di li arbi ñoom euh, ngir tabax yu mucc ay loolu nag ngir gën cee xóot am na ñoo xamante ni ñoom seen liggéey kecc kocc la euh, bu ngeen xoolee fii sama ginnaaw mbay et ñoom nag dañ ci yëngu bay ci seen waar man ci lool xarañ ci euh, ci noonu fii ci salon bi ci foire internationale bu Dakar ñoom am nañ fi stand stand bi nag am na kenn ku leen fi teewal soxna Fatou Diop moom nag lañuy ñuy seqal laaj ci barab bi ak stand yi ak visite yi soxna Fatou maa ngi lay fay sëñ bi fi mooy établissement Mbaye et Frères ñun moom ñu ngi yëngu ci lépp loo xamante ni day taaral kër lu ko demee si ni aluminium double vitrage <coughs> essence te ak euh, inox lépp loo xam ne day taal kër léegi ñoo ngi siy yëngu. ay euh, double vitrage yu amul fenn yoo xam ni yu rafet lay doon en plus euh, doo dégg bruit bi si biti. mu mel ne waa gis nga ko euh, di présentation bu am solo jëm ci li nga xam moom moo soxal exposition bi mais tey bu ñëwee ci nombre de visiteurs yi ñi nga xamante ni ñi ngi ñëw ci salon bi pour visiter naka la ñu découvrir Mbaye et Frères. moom comme ni ma ko waxee rek képp koo xamante ni bëgg nga luy taaral sa kër yëpp di nga jaax fii si mbay et moo tax visiteurs yi ñoom ñëpp dañuy sawar xam ko. ak euh, xam fi mu nekk. waaw am na solo parce que dinañu permettre ñu xam fu Mbaye et Frères nekk carte visite yi ñu fi joxe bëri na flyers yi ñu si joxe aussi bëri na parce que nit ñi euh, liggéey bi nga xamante ne bu sell bi nga xamante ne mbay et Frères ngi koy def moo ñuy teel. moo tax ñu ci bëri dañuy ñëw pour laajte fan la ñu nekk wala ñu jox leen carte ñu mën a xam fan la ñu nekk pour commander affaire yi li ma comme li ma ko waxee rek lépp loo xamante ni baax baax la ak luy taaral kër rek Mbaye et mu ngi ciy yëngu. noo gisee wàllum euh, li ñuy wax. artisanat bi. boo xoolee foire bi da ngay gis que ni dañ fi def yépp yu am solo la kon donc soxlaatuñu loo xamante ni day jóge bitim réew di ñëw fii mën nañoo def consommer local euh, comme boo xoolee artisan yi fii ci ñuy yëngu bagage yëpp a ngi fi. waaw vraiment daal foire bi daal am na solo. waa ku bëgg a gis Mbaye Frère da ngay dem HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba euh, nga woote suñu kii bi suñu responsable de vente bi si 33 864 75 15 wala 33 864 74 74 ou bien 77 637 52 64. mi nga kon numéro téléphone yaa ngi noonu ngeen mën koo. Euh, am euh, dañ leen ko affiché ci suuf écran bi ak Tawfekh Production ngeen mën a woote également sur ces numéros euh, bokk na ci lii di 33 ginnaaw boobu ba CD 121 vous êtes si vous êtes hors de Dakar hors du Sénégal nga am nga nekk ci bitim réew nga def 33 864 75 15 33 868 74 14 wala 77 637 52 64 donc BM BA YE maanaam 2013. arobase hotmail point com mooy seen mail bi ngeen leen mën aussi envoyé ay message ñu nekk ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba HLM 1 euh, fii ci Dakar euh, Sénégal booy jëm ci marché HLM bi rek di nga leen fa euh, fekk mi ngook voilà ça n'est tout pour cette présentation jëm ci mbay et frère bi nga xamante ni ku tabax ku ne bëgg nga sa tabax taaru bëgg nga mu jekk bëgg nga mu am ay aluminium yu am solo ay vitrine ay verre lépp loo soxla rek ci lu koy taaral mu jël ko ay mbay et frère ay nañ ci lool gaaw